yam na xadiimal mustafa yow mii ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal su rafaa nga mbëri soog a dem sa tur wi wenn rawu ko sa waajurit kenn gënu ko saw askanit kenn gënu ko sa jikko nag kenn du ko am li tax amoo yow dendana jagle nga am ciw turandoo ngir koo fi bokkal turandoo aminatu du doon ndeyam mbaa bu ami doonee ndeyam seexul xaddim du waajuram te du am ngor gi nga am ji jagle yow rekk a ko am aminatoo jur Mustapha amintaloo jur mi tafa kon mee tafa may mi tafa li tax mu sangaay kemam madina gee taayif kële Touba gileeg Taïf gilee maître yi ñoo ko tollale kum neex nga dem na ba xam taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii tafa wir ga newoon ca Moustapha gis nan ko it ci mii itam Seex Moustapha musu la war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn musu ko gis mu bangam bu dee ci taar taarixu bayti de moom ci gàttal sëñ Taaru Asan Njaay moo sañcoon bayti sëñ Taaru Asan Njaay nag ba sëñ Tuubaa uh, goree dëkk bi ba bay fii ba mu set wecc sëñ Taaru Asan Njaay la woo ba mu ñëw mu ne ko takkal ma am néeg mu daal koy takkaloo néeg bi ba mu ko takkal ku néeg ba mu noppi mu daal di koy làkkuloo kër gi làkkum ngeer ba mu làkkee làkkum ngeer ba noppi mu ne ko dugal ma ci biir defal ma ci xalwatu ba sëñ Daaru def na ci xalwatu weer bu topp wax nañ ne fukki fan la waaye weer bi daal topp na daal yàlla dogal nag mu nekk ci bi mu génnee nag sëñ Tuubaa doog cee dugal boppam ba def fi juróomi at juróom-ñaari at sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa def na juróom-ñaari at ci néeg bi waaw néeg bi def na juróom-ñaari at yàlla dogal nag jàkk ji xëy na moom ngeen romb moo doon jàkkaam jum daan jullee daan fi def waxtu juróom yëpp fi ko daan jullee ba bi mu demee ba ba toll ci juróom-ñaari at koor gi fi mujj woor loolu def lixtikaaf ci jàkka jooju jàkka jooju nag fi ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko fekk. nu ko fekkee nag sëriñ bi moom itteem yëpp. bëgg bokku bokk ci àndandoo yi ànd ak yontu bi salaahu salaam yontu bi xamal ko ne ko mboolem ñi ma feeñu ñëpp day bëgg nañu ko ba ku ma ci feeñu ku ne rek da ngay bëgg a ànd ci mbooloo mi waaye nag lay tax nga ànd ci mbooloo mi day lu jafe lay doon loo xëy nii saa yi buñ la ko wanee doo ci dugg ba ba kenn daal ko yenoo kon daal ba yóbbu ko amagut waaw sëñ bi ne ko nag man day ànd ci rek laa bëgg ba mu ko bëggoon bëggu na ko takkal sax garaatu xut bu samaan waaye sëñ bi xamal ko ne ko moom bokku ci àndandoo yi rek la bëgg moom mooy itteem yonent bi doo ko wax nag li koy may ak li koy xañ du mu eggalee sëñ bi ne ko nag man sakkuma sama ruug yi ba xam lu mu attan waaye lu sama ruug yi attan sans jom dana ko dégg loolu nag ba mu ko waxantee yonent ba noppi nag yonent bi na ne ko nag léegi li nga jaayantoon am nga ko may nañ la ko waaye bi ñu la ko mayee nag dëkki moom da nga génn da koy génn. ndax bi sëriñ bi génn dëkk bi fii la jógee. waaw fii la jógee waaw fii la jógee fii la dem Mbacke Bari Mbacke Bari ba mu ko sañcee yontu bi moo na ko dañoo aar dëkk bi aw ay du la fekk noonu yi noonu yi war a jëfandiku ci yow it duñ la fi fekk kon nag da ngay génn dëkk bi loolu moo waral mu dikk Mbacke mu dem Mbacke Bari ba dafa juróom benn juróom maanaam yenti weer la def. sawal sul xiidati sul ijjati mu aram yent weer yooyu la fa am ba mu dugg ci weeru safar wi ci la jàpp fukki fan ak juróom-ñett war a dem ci ci tubaab bi fekk booba yónni na maam Thierno ba mu demee Ndar borom Ndar xamal ko yebal naa soldat yoo koy jàppi ndax dañ ko woo ay yoon yoon ñukkut maam Thierno xamal ko ne ko benn bataaxal bu ko mën a woo mas a woo wala kenn ko mas a woo daal ah, ak siwul foofu ci moom mu ne ko nag jàpp na su yéen borom dara xamal ne ko jàpp na ne yow fa nga moom fa moom nga jóge waaw ci moom nga jóge maam maam Thierno daal fa jóge dikk bi dikkee Louga nag la ba pare aw fas nag sëñ Mor ñaan bu nguñure ñaan moo ko jox fasu yafal yafal yetti at. ne ko ne fas yi du tërë du tërë du tërëf mu war laa daal di mbàkke bari ba mu demee mbàkke bari dajanteeg bët di set fekk sëñ bi julli ba fajar ba ba ba ñu julli si fajar fa bagage am yëpp teg ko ci buntu baga ci ci buntu jàkka ji. bi sëñ bi dikkee ji dana wax ne maam Thierno ñu ne ñëwagut mu daal dugg ci jàkka ji bi mu sëlmalee nag génn fekk maam Thierno taxaw mu ne ko ñëw nga mu ne ñëw naa. léegi mu ne ko nag damay liggéey rek sans njaboot gi laa la bëgg dénk muy muy sëñ Fallou sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou booba ñoom ñaar rek ñoo fi nekk ci ay doom yu góor waaw yàlla dogal nag maanaam. mu daal di euh, ma maam Thierno du ko bëgg li nettali yoonam mu ne ko biig ba nga taxawee ci Louga ca xorondoom yi doon dox ci say tànk boobu maa ngi janoog ñoom daanaka nag jëru maa wax dara jëru maa ndax bi nga taxawee ci Louga xorondoom yi doon dox say tànk boobu maa ngi jàkkaarloog ñoom daal na sama njaboot gi laa la bëgg a dénk daal di foofu loo xam ne teg ko ci bopp sëñ Moudou Moustapha ne ko naa la yàlla ak yonent bi teg dénk naa la sëñ sa daal di war ca façon nag biñ doxee tuuti mu woowaat leen waxaat ak ñoom yeneen kàddu yoo xëy nii ñoom la ko yàlla def na mu daal fay mu daal fay mu daal di dugg daal di dugg ca fekk maam Abdoulou moo ko jël si. ndax loolu it siiw na ndax sañ Fallu wax na ko sëñ Fallu nee na maam Abdoulou rek mu ànd ak ab benn soldaar ñu jóge jeewal di ko jël si sëñ euh, sëñ jël si euh, sëñ Touba waaw ñoom ñaar ñetti fas rek. ñoom booba jeewal la ñu nekk di ko fa xaar yàlla dem nag maam Abdou Lo ànd ak benn soldaar ñëw jeewal ñëw ñëw Mbàkke Bari jël si sëñ bi waaw. bo sëñ bi nag daa fa jógee dem gaaw la fa jógee daa dem jeewal daa dem jeewal ba mu fa demee amee ba mu fa yendoo fanaan fa ba seet di dimanche li fa jógee daal wuti wuti wuti wuti Louga ndar bam demee ba Louga nag foofa la ba ba ca saxaar ngoon moo ko fa jëlee yóbbu yóbbu ko ndar ndar am na fa juróom mu am fa maanaam ah, weer ak fukki fan moom la am ndar ñu jëlee ko fi Ndakaar mu daal dem Ndakaaru ba mu Ndakaaru ñetti al alxames la fa jógee la fa dem alxames ajuma gaawu ñu dugal ko ci bato jëmee ko euh, Conakry waaw foofu loolu mooy mooy tukki bi. léegi nag bagage bi nag bàyyi fi def bagage am bii nag yàlla dogal na sëñ Mutum Subaa moo ko doon saytu. waaw Daaru Ndiaye ñi xay ni ñoom ñooy ñooy sosoon barab bi ci sëñ Abdou sëñ Daaru Asan taawu sëñ kii kii taawam mooy sëñ Abdou Fati Mbaalo sëñ Fallou Ndiaye moo ca topp sëñ Mbaye Fallou moo ca ak ku sëñ Abdou sëñ Abdou Khadir Ndiaye waaw ak sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ Mbaye Fallou sëñ sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ Abdou ak sëñ Abdou Sakh mu ko defee nag sëñ Ibou Sakho nag ci la doomi sëñ Daaru yi euh, ci ay doomam sëñ Mbacke Awa Ndiaye moom moo moo moo yor barab bi bi mu demee sëñ Cheikh Fatou Sile Ndiaye moo yor barab bi ànd ay njabootam bi demee sëñ Mbacke Fatou Sile moo yor barab bi bi demee sëñ Abdou Khadir Ndiaye mi xëy nii moom sëñ Ousmane Ndiaye mii moo moo ko jur sëñ Ousmane Ndiaye mii moo ko jur. moom laa àndal bokk nekk ci daara ji moom mii mooy yor moo yor mooy mooy xalifa Daaru Njaay waaw ci ndigalam lañ ñu fi nekke bagage bi nag li ko fi indi bagage sëñ Tuubaa bi lépp mooy bagage sëñ Tuubaa la waaw yim yor ci géej gi waaw moom la fi bàyyi bagage yi nag maanaam ay ay téere rek la def ak ay téere ak am na ay ay benn xali ay maanaam ay ay daa ak waaye du amul ay yére amul kii waaye ay ay ay téere rek moom daana mooy alal sëñ Tuubaa moom moo nekk ci biir barab bi lu man fanweeri gaal daal war a mat fanweeri gaal ak yaar mi ngi fi fanweeri gaal yaar mi ngi ci biir néeg bi waaye yëpp ay téere def sëñ Moudou Moustapha it daana wax ne bis bi bis na boo xëy ne képp ku yàlla may nga teew fi fanaan fi boo xëyee da nga mel na nga juddoo woon ci bàkkaar dell na wax ne barab bi ku ko siyaare ku ko siyaare euh, ku ci kër gi kenn fi duggaal ak bàkkaar ci kër gi waaw ko ànd ak sell daal soo fi duggee mën ngaa rafet njortuñu ne jéggal nañ sey bakkaar ndax sëñ Tuubaa moo wax ne wax li awaay yële si nadaa moo bi xidmatin wa ablu mara moo daa wax suñu borom ne ko ku nu ku nu siyaare nañ ko jégal bakkaaram te faj aajoom moom sëñ Tuubaa moo ko wax wax li awaay yële waaw barab waaw siyaare la ndax sëñ Tuubaa wax ne aju ne ba ba ba diir bi mu fi bi mu fi jógee bi mu fi jógee nag ba mu demee ca tukki ba benn la fi ñëwaatee Daaru Manaan la sanc bi mu sancee Daaru Manaan juróom benn weer la fa am tubaab yi duural ko ne day daaj lay gànnaay euh, am na ci foofu it mën na sa fa bañ a ndax moom xam nañ ko xamati ko xamati ko waaw ñu duural ko jëlee ko fi yóbbu gànnaar ba mu jógee gànnaar ñu jëlee ko fa yóbbu jolof gànnaar juróomi at la fa am jolof yanti at ñu jóg faa jële yóbbu ko njaareem njaareem fukki at ak juróom la fa am daal di ñibbi si Touba ci bis bi waaw bis bii xëy na ci la ñibbi si wax nañ ne bis bi la boo xëy nii muy na ma aram muy fukki fan ak juróom-ñeent di fi guddi mooy bis bi xëy nii sëñ Moudou Moustapha daa wax ne ku fanaan fii mel na nga ne da juddoo woon ci bàkkaar waaw waaw daxaar gi mi ngi taalibe yi jébaloon ci moom bi sëñ Tuubaa ñibbi seen njaareem jóge njaareem ñëw fii bu ñoom la àndal ba ba ci barab bi daqaar gi lañ wax ne foofu lañ dëkk loolu tax daqaar gi ñu di ko ormal bañ ko dagg. waaw waaw waaw waaw jinne ay jinne jinne yi nag dañ koy laaj waxtu ne naan fa ñu nekk noonu nag fii leen mujj a gisee fi leen mujj a déggee loola la ci mën a wax fii fi leen mujj a dégg daal garab yàlla ñuy a dégg waaye ñun gisuñu leen. waaw ah, gisuñu waa cegu dul waaw fi la nekk nag waaye ñun gisuñu leen xëy na ñoom nag ñu ngi ñuy gis waaw waaye ñoom nag ñu ngi ñuy gis barab bi laa boo xëy daal màggal gi daal képp ko xam ne yàlla mën na la ko daana ca bu jëkk daañu wax daal boo yoree benn bu bu képp jar na nga jaay ko paase ko ñëw ci màggal gi waaw màggal gu mujj gi nag mooy màggal gi xëy ni ci la Sëñ Tuubaa waxee ne euh, ko màggal bisub tukkee ba jaar nga añ nga am nga am nga yool ba mooy màggal gu mujj gi waaye màggal gii te sa Moustapha moom moo koy defal wajuram ànd ko njobootu sëñ Touba yépp kon nag ñoo ngi sant yàlla di sant yonentu bi di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ak sëñ ak sëñ Amadou Muxtaar ak njobootu Daaru Xuddoos ak sëñ Abdou Khadir njaay ak njobootu sëñ Daaru Asan Ndiaye ñoo ngi sant yàlla baax a baax a baax ñaan suñu borom defal ñu tawféex képp ku fi dikk suñu borom jéggale say bàkkaar